Euh, les problèmes euh, yi nga xam ne mun nañu wax ne mu ngi am euh, fii euh, suñu réew à fois mu am euh, benn façon particulier boo xam ne rek daf koy joxe li nga xam ne mooy jisisam abu sa gis par rapport ak l'affaire de ces députés yu féetu rek si Yewwi Sénégal précisément si parti PUR muy nekk Massata ak ki nga xam ne mooy Mamadou Niang ñoom nag ñoo nekkoon assemblée national jëloon rek violence tek ko si la dame Ami gannaaw rek ba ñoo jàppee ne dafa offensé li nga xam ne moo nekk si seen kilifa seen kilifa euh, si wàllum diine fu toll nag mun nañu wax ne délibéré bi euh, procureur def na leen euh, sàkku na à que ñu am ñu tëj leen ñaari ati kaso mais fu mu toll nii dañuy xaar li nga xam ne moo nekk délibération bu juge lundi prochain incha allah am si ban jàngat par rapport ak euh, yi nga xam ne ces événements yi nga xam ne am na assemblée nationale surtout comportement député yi ak tamit place yi suñu religieux yi suñu si biir espace public bi. waaw oh, moom laa la wax léegi léegi sànq. bi mhm. wax junj ko sànq sama biir wax ma ne la il faut qu'on va vers sa mhm. ñu dem xoolaat suñu relation avec les hommes religieux. Mhm. ak les chefs religieux. parce que boo indee parti politique. nga ne chef religieux sa chef religieux la sa guide religieux la. bu fekkente ne ni moom moo continuer di présider sa parti. te nga ne bu ko kenn attaqué. te ci politique aussi loolu daf ci am parce que dama ko waxoon ci président Macky Sall ma ne problème bi yëpp président Macky Sall moo ko fi indi. parce que les assises dafa jëloon ay ay ay ay ay ay ay ay projet réforme ak charte. chef de parti chef de ak institution nga xam ne président de la république tey institution la article quatre-vingt mënoo ko sonalee parce que ku la attaqué en tant que président de la république boo waxee dañ ne chef de parti de l'APR président Benno Bokk Yaakaar laay waxal. Mhm. te doo ci mën dara te loolu pour départir l' état parti nga xam ni depuis 60. Mhm. état parti moo bloqué Sénégal si la ñu sukkandiku Mamadou du ak Senghor état parti. Mhm. Senghor Abdou Diouf baroni débaronisé yi ci jamono yi Abdou Diouf bi mu ñëwee ñoom ñes état parti day dem ba day bloqué sax dëkk. bi assises yi ñëwee ñi dundoon loolu ñoom ñoo ko réfléchir jox ko bi président Macky Sall ñëwee da koo jël teg ko léegi bu ñu demee ba ci biir ñu dem ba benn phénomène commencé di am mara sëriñ si commencé di créer ay parti politique mm-hmm. mais ci formation ak conscience citoyenne ci formation bi mënuñu canaliser seeni militant entre militant bi ak taalibe bi mm-hmm. léegi bu ñu yegsee foofu te ñu nekk ci république c' est moment aussi ñu réfléchir parce que waa kër Masata ñi far ci Masata mm-hmm. dañ lay wax nii ni suñu sëriñ jaral nañu suñu bakken ku ko laal ñu laal ku ko tudd ñu tudd la mais dañuy tolérer seen sëriñ aussi mu tudd ku ko neex. en tout on est dans une république. aussi waaw léegi léegi loolu laay wax ne la <laughs> moom laay wax ne la tey jii nii loolu bu fekkente ne ni génération bii di ñëw ñu ko comprendre. Mhm. kooku waxtaan day indi dialogue indi. nga xam ne nit mën na nag sooke parti nekk chef de parti bu jotee mu daal di tey soxna Dieng mooy représenter souvent Serigne Modou Kara su defee tête de liste. Mhm. mais tey jii nii bii nii bu ñu yegsee ñu ne ah léegi kuy créer parce que bu ñuy dem di déposer ji seen këyit yi au niveau du ministère de l' intérieur foofu duñ fa wax chef religieux. Mhm. parce que texte yi pour créer association day tere loolu. Mhm. loo xam ne dafay am ci religion dafay am leneen ak leneen texte yi da koy bañ. c' est vrai léegi pourquoi texte wala soit ñu appliqué waat texte yooyu wala ñu indi loi bu ko encadré parce que dañu wax ne ni marabu bi statut mhm. parfois koy permettre à ce que yenn yi du ko mën. tey bu fa Serigne Moustapha doon dugg assemblée. doo ñëw doon gan da nga koy nangul protocole am da nga koy nangul ñi mu àndal parce que doomu Serigne Cheikh la kilifa la hmm. mais tey jii ni bu fekkente ne ni nag dafa waroon ñëw nekk député di toog ci place député bi kooku da koy xoolee comme député du peuple collègue député am lay nekk. un homme politique. waaw léegi différence loolu foog gars yi dindi ko réglé ko. gis nga hmm. bu ñu ko réglé wul dafay indi ñun ñi ñëpp victime lañ ci. donc finalement ndax xoolal man man man yemuñu ci rek bi coow li amee man y a ay nit dañ may wax ni bul tuddati sëñ Moustapha boo ko defee dañ lay rey. def naa émission ba pare ñu dem fekk ji fa ma def émission ne dañuy rey ki ma defal émission. kon mbir mi toll na foofu. mais yàlla li ma gën a métti ci àdduna mooy di ma saaga di saaga sama xalif général. Hmm. Serigne Mbaye Sy Mansour saa yu ma yeewoo. on m'envoie des messages nëbbuñu ko. Hmm. dañ ma ko tàllal nii ñu ngi de créer groupe. Hmm. di ma saaga mais xam nga bu ma saaga man kase dérangé wu ma parce que man bi ma nekkee liir ba léegi ñu may saaga <laughs> parce que bi ma nekkee liir ba léegi maa ngi raag. mais boo ma saagaa yem ci mais dañuy saaga sama xalif généraux ba pare attaqué sama juma. Mhm. c'est parce que boo jëlee position ngay expliquer sax nii duñ la ko nangul. Mhm. ñu nekk ci victime. di la fekk ci biir ay jàkk ak ay juma. di la saaga di yem yu xamul dara ñu lay saaga. pourtant li ñuy def li ñuy xeex ñoom maa lañ ko dàq xeex. Mhm. mooy tey pour man. nii mu Moustapha doonee kilifa la nangu laa nangoo mu nekk sama kilifa parce que doomu Serigne Cheikh la mais ni ma nangoo ni Serigne Mbaye Sy Mansour ay sunu xalif ku ko laal ma moom lañu ñu gëm la ñu yaakaar moo fi suñu kilifa noonu tamit laay nangulee ni Serigne Mbaye mun Mountakha aussi tamit kenn du ko attaqué noonu laay nangulee keneen waaye teewoon gi ma bokk muy Serigne mais dañ may laal di laal sama xalif. mais mais mais. léegi nag lii yëpp pour régler ko nag waxtaan moo koy indi. mooy tey Masata ak sëñ Moustapha moo leen def ci listam mhm. parce que démocratie yi ñuy wax ci parti amul moo leen tànn dugal leen fa même comportement bi Masata am mhm. boobu comportement la waa yeeyu taxawu Sénégal am li leen Khalifa Sall wax la ñuy def même comportement bi Masata am ak Mamadou Niang moom la waa Pastef am parce que waa Pastef Khalifa Sall ak ñoom bu ñu toogee dañ naan suñuy député waa Benno Bokk Yaakaar tamit Ami Ndiaye ñii bi nanguwul ni Sénégal ñoo ko fal mhm. dafay taxaw rek Macky Sall ku ko laal ñu joxe suñu bakken pourtant même i Sall sax sénégalais yi ñooy patron mais c'est parce que ni ñu faree Amy Ndiaye ñii di la mooy député bu parti yi nekk foofu di xeex ne seen parti yi ñoo leen fa indi te sénégalais yi fal leen rupture boobu ñu ko bëggee indi on va vers des réformes il faut que il faut que askan wi ko. mais réforme yooyu Abou si laa bëgg ñu ñëw est-ce que tey du ñu dellu jamono Léopold Sédar Senghor par ak l'implication suñu guide religieux yi te ko xam Sénégal sénégalais dafa dafa am benn l'islam boo xam ne dañ ko adopté moo nekkoon en islam euh, confrérique ku nekk su ñun am na si sëriñ boo xam ne moom la jokko taf des fois euh, fanatisme dafay dox suñu diggante ak euh, suñu ay kilifa yi nga xam ne rek. jàpp ne ñooñu war a euh, wanale yoon bi par rapport li nga xam ne mooy diine l'islam tey est-ce que waruñoo dem ba Léopold Sédar Senghor nu mu defoon interdire euh, ñi nga xam ne moo nekk ces chefs religieux ñu dugg si li nga xam ne mooy làngum politique parce que finalement cette affaire Ami Ñibiri euh, dafa mel ni comme dafa wane rek les Sénégalais ne peuvent pas faire la différence entre l'homme religieux et l'homme politique oh, moo tax foofu laa wax ne la buñ ko xeeb foofu ñu dem dans des réflexions parce que xam nga lu tax <laughs> mooy xam nga ki ma tiim ngay xale bu ndaw woo la saaga la saaga sa xalif saaga la <laughs> ne la sama bakken sax sa jël sa bopp yóbbul ko sama sëriñ xam nga tey kooku doo ko reproché si ignorance am léegi gis nga de la même sorte xam nga boo ne nañ leen exclure marabu yi pourtant am na marabu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma dafa yàq dara créé wul PDS yóbbuwul Cheikh Anta encadré ko lan la fi yàq sëriñ Cheikh Tidiane si al Maktoum mm-hmm. xeexu ak Senghor dem ak ñoom élection yarul ñoom Serigne Moustapha Baye Niass ak Serigne Serigne Cheikh créé wuñ fi woon parti muy muy muy muy PSS. mais après lan moo lan moo am demuñu ñuy def ay dialogue di waxtaan mais bu ñu yegsee nag ba fii nga xam ni ni toll na niveau boo xam ni les gens utilisent même les marabouts tey tey waa PUR yooyu tey waa taxaw gëmuñu leen waa Pastef gëmuñu leen mais dañu gëm seen dynamique gëm seen force. mais faale wuñ leen gëmuñu leen parce que koo ci dem ci ñoom doo fekk photo Serigne Cheikh wala photo Serigne Moustapha wala photo Serigne Saliou. ay Mandela nga fay fekk wala ay ay Thomas Sankara te kenn ci ñoom yéenewul jël doomam yóbbul ko Serigne Cheikh wala yóbbul ko Serigne Cheikh Saliou wala yóbbul ko keneen duñ fa waxtaane seen wax du duñu dem daayira duñu dem wasifa ni mu amee ay organisation religieuse ñu nangul leen ko am na Serigne tamit yu citoyen yoo xam ne mën nañu créer parti mais ñu def différence bi bu fekkente ne gis nañu nag yii jot a am nii nga xam ne bu sëriñ bi ñëwee di wax ak ay maro ay taalibeem dafay wax ñoom en tant que taalibe léegi nag loolu pour régler ko dañuy waxtaan ñu dem vers ces réformes trouver ci solution il faut ñu am ci consensus. et les propos de la de Barthélémy à l'endroit de la. moom moom laa la wax ne la xam nga tey propos Barthélémy Dia